soxna si maa ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. Ndeye laa tudd Ndeye Fall. waaw lan nga ci Fall mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. ñoo bokk Ndeye ak ba ñu la jaalee sa rakk jooju di la masawu waaye di bokk ak yow li nga xamante ni moo di tiis bi aussi lan ñu mën a wax rek ci Fallou rawatina ci koñ bi nga xamante ni moo fii la dëkk relation ak ñi nga xamante ni moo di waa koñ bi ndax gis nañu ki nekk ci koñ bi boo demberu làmb Fallou par programme bu ñu teg def ci taxaw taxawaay bi ci mot. ah Fallou comme ni mu nekkee ñun lekk ñun la nekkee waa koñ bi parce que fi la juddoo yaroo fi màggee fi mun naa ne sax waa koñ bi ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg parce que xaritam yi ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg jooy ñu Fallou xaritam yi la ñuy jooy parce que ñoom bi ñuy xale ba nekk kii la ñuy nekk néeg bi moom moo fi dëkkoon moom ak ay xaritam loolu la dundee ñoom wan leen ginnaaw mun sonn si nitam nag booy biir buy bëri dama naan alaaj bul dem estaat ne damay dem parce que su ma ko yóbbuwul du nangoo dem bàyyi ma dem ak combat bu mujj bi buñ daan buñ ko daane mën na ko alaaj mu ne ma man maa ngi ñibbi mënuma xool booy biir naka nga yëgee li nga xamante ni moom moo dal ci seen kaw. ah dafa métti parce xale la boo xam ne nii macha allah dafa teel a sotti muy si ñi bokkal ndey ñi bokkal baay fameem ñëpp nag ay xaritam bëgg ko mu bëgg leen danga mën a sa jàmbur ñoo la gën a mbokk amul ku alaaji bokkal rek te mënul sonn si yow bëgguñu nag ñun ñi bokkal ndey baay ñëpp alaaji kum si toogal danga naan mën la gën a bëgg bëgguñu ñun ñëpp dañoo bëgg ba dañoo rus kum si waxtaanal du siggi xool la déedéet muy ñu mag muy ñu ndaw. dëgg yàlla bëgg sama yaay trop. naka ngeen yëgee tiis bi nga xam ne moo dal ci seen kaw. ah téléphone rek laa ko yëgee El Hadj Thiam moo ma woo ma ne El Hadj Dieng ma ne ko déedéet loolu amul après nag te am na wante nag xëy loolu moo neex yàlla. kañ nga mujjee gis El Hadj wala kañ nga ko mujjee dégg. ñett fan yëpp ñoo ngi déggante parce que man ñuy gisante mais ñetti fan yëpp dañuy gisante chaque jour sax ñetti fan yëpp barki démb doom bi daa waroon jong ñu wax ko mu ne déedéet ñu ne xaaral ma woo ñu ma woowee ma ne ko eh joxeel xaalis bi mu jong mu ne dafa tuuti ma ne ko joxeel xaalis bi mu jong mu joxe xaalis bi woo ma parce que ñëpp dañ naan ko ndey mooy sa yaay moom mañ si yow dara sama xarit la sama raq la waaye sama xarit la ñëpp ñàkk nañ mais man maa ñàkk maa gën a ñaax trop. tey lan moo la gën a marqué ci alaaji mi nga xam ne moo fi daal di bàyyeekoo. ah li ma marqué bëri na parce que mbébét yi nga xam ne moom la amoon si yaayam man moom laa mujjee waxtaan ak moom xëy na nag yàlla mooy dogal nii la ko bëggee rek moo mu demee noonu wante amoon na yéene si sama yaay torop torop dañ koy wax ne ko góor yaay nga su wàccee du dugg néegam sama néeg yaay lay tëdd tëdd benn ki nga xam ne moom la àndaloon bi muy def soog bi ndax xaritam la wala moom lanam la. sax xam naa ne daal mécanicien la comme moom rek parce que moom ci liggéeyam daal la ko yàlla jëlee alaaj amul samedi amul dimanche mu fi sama dana ma toowoo alaaj dafa du noppali ma woowoo ah, ah, moo neex nañ la kuñ bul amaat billaay lan gën a marqué tey gannaaw ba nga xam ne woo nañ la ne la sa xarit. nag ki nga xamante ni moom moo la gënoon déggal daal dina fi bàyyee ko. ma marqué si moom bëri na de bëri na su ma ko doon wax fii du bi fi jógee bëri na trop parce que seede bi yëpp benn la ko wax benn jikko la lay wax alaaj ñu yaroon noog moom muy ànd ak ñoom ñoo ko xam mais bu dul loolu amul ñu ko xam parce que sobul sobul nag ko dëgg yàlla déggal nañu bëgg nañu sobul daal wante nag. ah yàlla loolu moo ko neex moo tax mu dem. d'accord naka ngeen koy dundee naka ngeen koy dundee jamono ji alaaji gannaaw bi nga xam seen papa daal dina fi bàyyi ko mu taxawoon taxawaayu papa. ah ah metti rek parce que moom papaam ba léegi moom xamul sax papaam. muy moom xale la man maa ko boot ba mu fer mu taq ma nag léppam man la kon tey su xëyee xëyee dem ah suñ nee metti wu ñu ne dañuy wax lu ñu neex te ba illaa yow di dañuy metti parce que xajoon na fi ñaari doom yi mu fi bàyyi kan la ko fi bàyyil ah xëy na yàlla mais metti na ne xale bu ndaw nga bàyyi jabar ñaari doom dem liggéey ci sa kaw liggéey yàlla jël la tamit metti na ne. ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma masawu waaye di bokk ak yow tiis bi aussi.